ba pare ñu wax ca kanamu mbooloo ma mhm. yóbbante wala buñ ko mënta yóbbante mu ñëw ak ki koy représenté ni ko xale bu jigéen bii ñi la may te muy jullit jàppal ne heure boo génnee ci diine ji yow mi ko bëgg comme tuub nga say amatu fa mhm. kon donc jël la ne cadre donnante waxatuma ci waaye sëy fu mu amul yaakaar naa donnante kenn du fa am mhm. ñaareel ba mooy jullit ak kuddul jullit mm-hmm. maanaam nga takk koo xam ni dafa nekk juif wala mu nekk chrétien mm-hmm. yéen ñaar boo leen ni sëy sëy boobu day valable parce que yàlla moo ni wal muxsanaati mina lazina utul kitaab mm-hmm. yàlla nee na jigéen ñi fegu nekk ay juif wala ay chrétien jullit mën na leen takk waaye nag su fekkee kenn dafa njëkk a génn àdduna sa moroom ci ñoom ñaar boobaa nag donnante du fa am ndax laa yarisu al muslim al kaafir walal kafir al muslim Julit, du doon ku dul julit par exemple du doon chrétien. Mhm. chrétien du doon julit ci li nga xamni mo ci borom xam wax héritage bi. Mhm. asma li ci dess nak incha c'est taala après bo ñëwee rek. Mhm. ma jox la ñaari yi nga atte na ci. ci jamono. ñu dem ñu ah. ñu dem dañuy ci ñaari cas ñu al masala al Omar moko ci ñaari famille famille bu njëkk bi ki génn àdduna jigéen la bàyyi jëkkëram bàyyi papaam bàyyi yaayam hmm. famille ñaareel bi ki génn àdduna góor la bàyyi jabaram bàyyi papaam bàyyi yaayam hmm. beneen famille bi nag papa ak yaay ak ay frère rek la bàyyi kon dañuy ànd ak ma ba dem insha allahu taala muy ni quelques images ñu leeral foofu tuuti insha allahu taala ayca gis nga am asma hmm. je pense que yaa ngi gis bu baax a baax waaw présentation héritage gis nga Mm-hmm. famille bu njëkk bi yaa ngi liir bu baax du awa bala waaw mi ngi nii mm-hmm. famille bu njëkk baa ngi nii mm-hmm. kon képp ku am famille bu mel nii ci cadre héritage lii mooy li nga xam ni moom ngay répartir héritage bi mu jaar yoon ci cadre islam moo xam da nga ko jox un imam moo xam da nga jëm ci tribunal ba un cadi àtte ko moo xam koo xam expert la ci héritage. non oustaz man comprendre ma ay image rek laa gis. waaw mais xoolal xoolal ki ngay njëkk am. époux la Awa Ba moo génn àdduna bàyyi jëkkëram boo xoolee jëkkër ji moo nekk nii moom muuru ah. dina la wax paaram bàyyi yaayam gis nga yaayam mi ngi nii waaw bàyyi papaam gis nga mm. jëkkëram la bàyyi jëkkëram a ngi nii waaw mu bàyyi yaayam yaayam mi ngi nii mu bàyyi papaam papaam a ngi nii mm-hmm. je pense que lii war nga ko mën a séddale. waaw parce que léegi yaa ngi commencé ay waaw maa ngi commencé kon gis nga. Mhm. asma ku bàyyi famu bi mel nii lii mooy sa héritage. léegi nag nan lañ koy séddalee ci cadre charia. Hmm. mu jël jëkkër ji jox ko un demi boo xoolee gis nga un demi. waaw xaaju alal bi. Hmm. deux millions la nga jël un million yi jox ko jëkkër. Mhm. pourquoi jëkkër di am xaaju alal boobu nag. parce que boo xoolee ci biir famille bi amul doom bu góor bu fi nekk. amul doom bu jigéen bu fi nekk. Mhm, bii jëkkër ak jabar kese la. jabar papa. jëkkër jabar papa. jëkkër papa yaay. waajur ñu jël un demi bi un million bi jox ko. parce que à bi la farax jëkkër su fekkee àndul ak doom xaaju alal lay jël. su fi doom nekkoon rek position am day changé dañ koy jox un quart kenn dootu ko jox un demi. ñu jox yaay ji un un un sulusul baax yi.

sulusul baax yi mooy bi nga génnee un demi bi un million bi beneen un million bi des da nga koy génne diviser ko par trois muy sulusul baax yi. Hmm. nga jox ko euh, yaayam. gis nga yaayam fii un tiers euh, sulusul baax yi léegi alal ji des donc boo xoolee alal ji six parts la juróom-benn part. Mm-hmm. six nga jël six divisé par deux muy trois nga jël trois part bi muy un demi bi. Mm-hmm. xaaju alal bi nga jox ko euh, jëkkër ji nga jëlaat. quatre parts euh, mu des ñaata trois parts. Mhm. nga jël benn part bi nga jox ko yaayam mu daal di des deux nga jox ko papa doo leen ma laaj lu tax papa ëppale fii. ma laaj way lu tax papa ëppale fii. parce que papa fii dafa taxaw taxawaayu aasib taxawaayu doom la taxaw. papa dafa am doole ci biir héritage papa ni ni doom di daanelee frère mm. noonu la papa di daanelee frère papa bu xisee ba taxaw ci miraas frère yépp daanuñu. sœur yëpp daanu nañu moo tax papa parfois day taxaw xaar bu ñëpp séddoo mu jël lépp ramassé ko mooy alxaasib papa léegi-léegi mu jël un sixième ba pare taxaw xaaraay jëlaat axyaanan yarisu bil fard wa axyaanan yarisu bil si papa day doon ne ci ñaari côté papa rek a ko am yaay amu ko looloo tax papa jël li des ci alal yëpp papa fort na de. papa dafa fort. muy benn. ci doom bu jigéen la wala ci doom bu góor lay jël de de. pap non papa ci doomam bu góor ak doomam bu jigéen. fu doom cër boobu la rek. benn cër boobu parce que doom néew fii moo tax papa jël li des lépp ci alal ji. <laughs> kon donc masala bu njëkk baa ngi nii euh, un demi bi nga jël ko jox ko époux bi maire bi nga jox ko sul sul baax yi li des ci un tiers bi li des ci alal ji yëpp di deux part nga jox ko papa. joxoon ko yaay mooy premier cas de figure bi nga xam ni. Seydina Omar àtte na ko asma léegi ma ba ñu dem ci beneen bi rapidement rek. Mm-hmm. allez ñu dem ci beneen cas ki génn àdduna Cheikh Bala góor la xam naa ku tudd Cheikh Ba moom bu dee mi ngi dund. am naa jumeau bu tudd Cheikh Ba sama mbokku taalibe la yàlla na nga gudd fan. yàlla na nga gudd fan Cheikh Ba rek damaa tiit. dañuy jàngale rek. gis nga. Cheikh Tidiane sens contraire bi am. Ah. mais nag Cheikh Ba moom jabaram la bàyyi ak yaayam. ak papaam gis nga fii ñu bari dañoo jàpp ni jabar sumun rek lay am. faama ba sax loolu la am. jabar du sumun rek lay am jabar mm-hmm. léeg-léeg day jël rubaxulment un quart alal bi alal ji boo ko jëlee xaaj ko ñeenti yoon ñeenteel bi jabar da koy jël léeg léegi lu koy indi lu koy waral parce que amul doom bu fi nekk bu fi doom doon nekk ñu koy dàq yóbbu ko ca un huitième muy nekk xaj bu nuqsaan xaj bu nuqsaan mooy lan mm. jabar ji de dañuy wàññi param ndax doom yi jigéen yi fi nekk wala doom yu góor yi fi nekk mooy manxul waaris minal irsi kullan aw baadal li wujud man huwa awla bil i asma du ma aj niveau bi yaa ngi may xool rek di nga comprendre. waaw non comprendre naa. yaa dama nekk di analyser keneen ku ma jege rek. mi ngi noonu kon fii jabar joxuñ ko un huitième mhm. mais dañ koo jox rubuux un quart lañ ko jox ci alal ji. def alal ji quatre parts mu des trois parts biñ ko jotee rubuux ñu jël benn paar bi muy sulusul baax yi ba nga xam ni. moom lañ joxoon maire bi ñu joxaat ko ko fii mu desaat deux ñu jëlaat ko joxaat ko papa fonk leen seen bàyyi. papa am na doom de am na am na am na am na doole de wa qada rabbuka allaa taabudu illa iyyah wa bil walidayni ihsaanan gis nga papa doole ji mu am fii kon fii quatre parts la nga jël benn part bi jox ko jabar ji muy un quart bi sulusul baax baqi un tiers bi dess nga jox ko mu dess deux parts nga jox ko papa moy al baqi lil ab taxsiban mu dess benn benn ka muy dernier bi asma ma ba ñu dem mu dess benn ka muy dernier bi gis nga ka bi nak fi nak changement da fay am في لا يالا نان ولي أبويه لكل واحد منهما السلوس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه السلوس فإن كان له إخوة فلأمه السلوس من بعد وصية يوصى بها أو دين مثلا دومي دار مفرين لك أستاذ نوتاني باوي نيتامي ها باوي نيري wano dañuy joxe exemple rek dañuy joxe exemple rek voilà merci beaucoup maba yàlla nee na papa. day am un sixième ci alal. Mhm. non yaay. papa ba ñëwaguma yaay. Ah. ak papa ku ne di am un sixième léeg-léeg ci alal. waaw in kaana lahu walad bu fekkee am na doom bu góor bu fa nekk wala doom bu jigéen bu fa nekk. fa in lam yakun lahu walad bu fekkee doom bu góor nekku fa doom bu jigéen nekk fa wa warisahu abawaahu papa mooy donn li des fa li ummihi sulus ginnaaw bi yaay jëlee un tiers. فإن كان له إخوة بفك أي فرد دفع نكنك فلأمه السدس نجل أن سيزم جقويا لكنك في كيجن أدنى فما با وديك ديو كومبران ديو رك دفع بايكن ياي يايم بابام أك أي فرد بايول جبر بايول دوم بغور بايول دوم بجيجن خمغا فامي بارفالي دي أم أم نيو خمني أم نيو دوم أم نيو جبر سا أم نيو جبر ملكي نك موم باينا في يايم باينا في بابام bayf ay jabar fi doom nan lañ un sixième jox ko yaay mhm. ñu ne ndax papa dañ un sixième déedéet boo koy jox un sixième di mhm. <laughs> question la femme xam nga yàlla dan la papa ak yaay dañ leen jox un sixième bu fi hmm. mais fii papa ak yaay ak ay frère ñoo fi ndax papa dañ koy jox un sixième da ngay jël def ko six parts juróom benn part. Hmm. nga diviser ko par six muy benn nga jox ko yaay. cinq yi ci des. papa ko moom. papa fonk leen dix millions dix millions nga diviser ko par six. Hmm nga génn un sixième bi li des ci millions par 6 million millions yi ci ñu papa. waa papa lan la defal yàlla ba tax ñu jël 5 millions yi jox ko ko papa defal gis nga frère yi ñu dugg espérer. Mhm. wong leen ñu ne leen zéro. ne parce que yaay. moo tax ngeen bokk ci group bi ñu sélectionné leen waaye mu jóo leen football dañ leen génne lu tax papa leen daaneel. waaw léegi pourquoi papa di am. parce que yàlla subhanahu wa taala moo ne ay frère fu ñu fa nekkee papa nekk fa frère ya daanu nañ ñu jël un sixième jox ko yaay ji. mais papa des fois fekk mu màgget wala mu nekk. bu màgget muy soxla alal dund rek bu màggeteeg bu demee ba dof ak bu xàmmeetul ak. ak njureel sax. la des lépp ci alal dañ koy jox jox ko papa. ak ak kum yereel tax si ban. papa dafa am doole frère yi daanu kenn doon na ci xoolal dafa croix frère yi. Mhm. lu tax parce que frère yi papa moo leen daaneel te frère yee tax yaay dem ci un sixième mu des juróomi paar yëpp ñu ni papa yaa ko doon frère yi daanu génn moo lay won di tëralinu yàlla kenn mën ko comprendre ma ba mhm. parce que yàlla subhanahu wa taala bu doon héritage da koo jox nit dafa yàqu mhm. joxu ko yonent joxu ko xutbu joxu ko wël yi yàlla ko jël séddaleel ko bokk boppam rëdd constitution bi ba mu jeex tàkk ni ko ku ko jalgati def safara looloo tax nit buy dund day sóor ni bis dana ñëw dafay dee te boo deewee dañuy séddalee sa alal mënoo ci dara testament testament moom ngay laaj testament non dama ne kon testament parce que waaw xam nga xam nga testament ñun dañu war a xam nan la ñuy defee testament en islam hmm. testament boo koy def li ngay def warul weesu un ci alal ji ngay maye laa yatajawaz as sulus illa biridal warasa yonent bi nee na warta weesu un lu dul héritier yi d'accord ci ndañ kay yokk te un boobu ngay def testament doo ci boole doom bu lay donn doo ci boole jabar ju lay donn doo ci boole papa bu lay donn doo ci boole yaay ju lay donn testament bi yaa ngi koy jël jox ko ñi nga xam ni donnuñ la d'accord oustaz mhm. Euh, leer na nañ macha allah ah. héritage moom foog naa saay bu ko stas andee day leer teg ci aussi da ngay jàng li nga xam te ne da ngay ne ndax

donc loolu noonu rek ak nu jigéen amee taxawaay ci ci famille. ci njabootam ci njabootam ak yooyu mm-hmm. waaye toujours jigéen la ñuy gën a gis ne ne mooy dellu ginnaaw comme ni ñu koy waxee yaay yaayu kenn la waaye bàyyi baay ñëpp la. Mm-hmm. tey papa ëppale ci bi nga mujj def nii lu tax jigéen gën a néew. xam nga xam nga lu yàlla teg la te jigéen yow yaa ko yor. wali rijaal alayhinna daraja mm-hmm. responsabilité yi nekk ci góor nekkul ci jigéen. Ah, loolu góor mooy dëkkal mooy dundal mooy. góor yu njëkk mooy joxe dépense ba tey ah, wali rijal na daraja njëkkee la moom yaa ngi dégg ba tey moom ak oustaz raar na de raar ah? ah, na de non parce que yàlla góor yi mat góor jamono ji mais mais àdduna du yàgg ba jigéen yilifu góor hmm. man de ki ma gën a bañ ci àdduna mooy ku sa jabar yilif ah, góor yàlla jabaram du ko yilif góor yàlla mooy yilif jabaram loolu xoolal ba pare loolu lañ lay imposer da ngay mën a mais teg ci ci biir kër gi yaay joxe dépense yaay fay courant am na mag bu doon wax mu ne jigéen bu sa bu bu bu fekki ni dafa am lu des ci li nga ko war a defal yebel dafay gaaw a dugg. Ah. dëgg la ku mottali sa dépense ñu ne mu yeb la. mais nag gis nga maam Sidi. ah jigéen ñi boo leen doon jox ay milliards. Hmm. boo xëyee amoo ko ñu xas la. mukk mukk am na ñu mën a muñ am na ñu mën a dama lay wax. c'est-à-dire que jigéen la kenn mënta satisfaire à 100 ah, pour cent. non maa ngi ma neex nii moo am. yàlla ne non mais asma nag xanaa gëmatoo ma. au contraire. non xaaral loolu la ñu mënut satisfaire. non loolu jigéen. Ah. jigéen. Ah. yàlla moo ni jigéen ci boppam seeni pexe dafa buddi montagne. jigéen mën nga ànd ak moom dix ans neuf ans nga gërëm ko xëy xas ko ci benn fan li mu defoon ci neuf ans yëpp yàqu. parce que ni yàlla programmé jigéen bind ko jigéen yàlla nee na jigéen dèjà dafa dafa dañoo jubadi dañoo dënk dañ leen a bind ci faat bu dënk.

jox góor titre góor. chef de famille. ñu bëri dañ ko respecté tul ba tax ne ñun dañ leen considéré comme kilifa. parce que boo seetloo xaaral ma wax la. Uh-huh. da nga ne jigéen ñi léegi wala jigéenu démb ak barki démb ak tey man dama ko yàgg wax ah, ne suñu pàpp yi ñoo tax suñu yaay yi sëy sëy bu rafet. Uh-huh. suñu pàpp yi démb. mais nag xale góor yi dañoo fàtte roy ci seen baay